waaw maaleykum salaam sama gars maa ngi leen nuyu guy guy quatre quinze maa ngi lay nuyu ak ñi nga àndal ñëpp di nuyu suma rakk suma xarit suma loxo nday joor Gora Gora Ndiaye borom amoo siis di nuyu suma Serigne Serigne Moussa Nawel ak njabootam gi yëpp Serigne Khadim Mbacke Nawel di nuyu suma papa di nuyu suma yaay di nuyu suma waa kër yëpp di nuyu fils de Balla ki waral coow li di nuyu chéram Khadija di ko ñaanal yàlla bébé bi dund tam ndey ak bàyyi di ko wax na ngénte li moom àdduna ñëpp kontaan nañ te ndax nee nañ ngénte dootu fi amati di ñaanal bébé bi dund tam ndey ak bàyyi di nuyu suma jabar Ndiaye pii di nuyu suma doom yëpp waaw. mooy ah, nuyu aussi Euh, lan nga ci moom vraiment àdduna ñu bari nag sama diggante ak moom da leen jaaxal ndax Fils Balla bu dëgg neexee rek ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. waaw ñoo bokk benn ndey bokk benn bàyyi. muy suma rakk di suma seddoo tey boo demoon sama kër nii sama papa problème boo ko mën a indil Fils de Balla danaan la demal wax ak papam papi mooy papam. sama yaay boo ko waxee mun la demal ci papi mooy papam Fils de Balla nekkatul suma rakk Fils de Balla suma doom la mooy suma taaw ba pare ma jël doom beeg taaw beeg lépp teg ko fële nekk supporteru Fils de Balla number one ndax man làmb gëmuma ci kurul Fils de Balla man làmb Fils de Balla kese kese laa ci topp moom laa ci gëm ndax lépp lu ñuy laaj ci mbër rek man li ma jàpp man moomu ko mën a jox waaw à part Balla Gaye 2 li ma xam ci làmb dëgg dëgg dëgg li ma bëgg ci làmb dëgg Fils de Balla ma ko mën a jox waaw ndax moo ñu yóbbu làmb te duñ fa julee gée waaw. seen complice mooy sama papa mooy sama yaay. waaw loolu nag cofeel bu dox sama diggante moom la rek da xam nga yàlla moom mooy dogal ñun suñu waa kër nag bizarrement ñun dañu bëgg bëggante quoi dañu bëggante rawatina man nag dama bëgg Fils de Balla ba àdduna ñëpp xam ne dama bëgg Fils de Balla muy suma dret te nag wax dëgg yàlla boo bëggul say rakk kan ngay bëgg da ngay fii rakk jàmbur yi wala magu jàmbur yi leen bëgg man fils de Balla laa bëgg mooy suma rakk ñu bokk benn deret waaw mu sax sama xol bi trop mu jaral ma lu ne tey làmb ñu bari mënuñu gëm ne fils de bokk day bay ndax ni ñu may gisee ci ginnaawam làmb tey bu amee ni may taxawee moo bu ñu kii moog fils de ñoo bokk ndey baay sa doo gëm waaw ndax bu ma neexoon tamit tey fils de tool na foo xam ne mënoon naa ñëw ak jar gi ndax lu ci bari tey suñuy moyen da ciy dem mënoon naa ñëw taxaw fële aj gàrte gi ñëw jaay affaire grand frère mais wax dëgg yàlla Fils de Balla bu xewlee plastique lay sol def tàggu neen une semaine avant combat bi damay mel ni ku tàqali ko sama sago ndax cofeel bi ma am ci moom waaw suñ borom nag moo mën na toolool ci moom. dëkk dëkk ak mbër nag moom boo bëggee dëgg dëgg guy gi quatre-vingt-quinze looloo gën a métti ci la yàlla bind. mbër yi koo nañ jobal nañ loolu moom suñu boroom dogal na ko waaw Fils de Balla moom mbër la boo xam ne wax dëgg yàlla bu boo génnee xol bu naay sam génne wax dëgg yàlla ñàkk problème am moom mbër yëpp a yem mbër yi moom ñu ci wër bëriwul ñu ci wër waaw ñoom ñëpp dañoo am tuuti dof waaw mën nañoo lekk mën nañoo gré. ku nga xam ne tamit làmb dafa am pression. tey boppam waaw loolu nag ku ne xam na ne yombul c'est que da ngay am xarit buy bëre rek wax dëgg yàlla du yomb ñun Balla Gaye de buy bëree rek sem waa kër da ngay tëg ne dëj moo fi waajaam ndax kenn du nekk ci jàmm une semaine dara combat ñëpp ay stressé ñëpp ay jaxasoo waxtuma laak nag sa dret bu waree bëree Fils de Balla nag bu waree bëree moom wax dëgg yàlla xel yi day jaxasoo sago yi tàggoo ñëpp nekk ci ay coono waaw tànk bërewul ba daan moom kenn du am jàmm waaw dëkk ak mbër dafa métti trop te foo ko natt dëgg yàlla wees na ko vraiment yow ñu bokk a blâmer Fils de Balla ci côté communication ñii nga ni muy euh, xam ne yaa bokk moom ndey ak bàyyi tey euh, boo ñu koy wax bizarrement dañ dul sportif rek quoi surtout lamb làmb dafa nekk sport boo xam ne wax dëgg yàlla gis nga ci mbër yi Sénégal yi ëpp yar ak teggin kenn demu ci ndax làmb sport show la sport yëngal la sport la boo xam ne dafa ànd ak hardcore du sport boo xam ne xoolal boo yi gën a yaru Sénégal rek ay classe Ahmed Dem yi ñu naan dañuy nekk ci mbalaanu wasifa yi tous les jours ak yenn mbër yi nga xam ne dañuy jàng ay alxuraan naan taalibe sëñ Babacar xool leen rek kenn du ci dem fenn lamb moo nekk sport boo xam ne dafa laaj show dafa laaj hardcore boo gisee moom box ñu xaw a yem demal États-Unis nga xool box gars yi dañ koy defee dañuy show ba wàccee États-Unis te te te lépp sport bi lay doon Fils de Balla bu su fi manqué kenn respect Fils de Balla communication bu jaar yoon la bokk na ci mbëru Sénégal yi fi yi fi ëpp staff Fils de Balla bokk na ci mbëru Sénégal yi ëpp encadrement ndax Fils de ñu koy topp bari Fils de Balla waxuma la hormis rek tey Fils de Balla magam yëpp dañuy topp ci ginnaawam sunu mag yi nekk diaspora bi ak ñu nekk fii ñëpp dañuy xëy soo ba ngoon ci mbiru Fils de Balla ñu ne koñ bii ñu dëkk tey ku ne xam na ne amu 456 cité bu mag la cité la boo xam ne cité intellectuelle la cadre yi fi nekk yëpp dañuy xëy soo ba ngoon di topp Fils Balla bokk na ci mbër yi ëpp encadrement ci réew mi dafa xam ni làmb di doxee moo tax ma yëpp Balla gën a ñàkk taalibe ci làmb ci côté làmb quoi Balla Gaye moo fi ne woon yëkki ni copine ñaay la ëpp ngay neewee te boobu ñu yëkki ne kat moo ko moom mos a manqué de respect mais làmb jooju tey moo ko jural coow àddunaam làmb dafa laaj coow Fils de Balla yàlla du taalibe sëñ Babacar Siw kenn Fils de Balla lamb ji lépp lu mu laaj ci show da koy def waaw wax dëgg yàlla saagaa gu fi nit mbër manqué gu fi nit respect waxu gu fi lu ñaaw mais boo xoolee lépp ci cadre lamb lay doon des jox ko ci mbër mu xaw la cokas ndax yooyu moo jur ay enjeu combat boo gisee ay signature am promoteur yëpp a ko yàqamte boo gisee lambam ni muy neexee te gaaw loolu show bi bi ci nekk xam nga fu lu mu ciy boole la mais du cadre reewande wala du cadre manque de communication mbëri nañ ko yamale ci lamb rek xam ne lii tamit day neexal lamb ndax lamb bu ñëpp yaroo wax dëgg yàlla lamb ji ci nekk mu nga xoolee leneen ndax lamb moom àndul ak vraiment. léegi bokk yi nga xam ne ñoo ëpp encadrement. ñoo hmm. hmm. jël yenn combat loolu tamit moom doy na waar loolu tamit moom chaque jour dañ koy dund. Fils depuis presque six ans ngi nii depuis Oninga combat bu mu mës a jël. man sama classe gi rek àdduna ñëpp dinañ ma woo ne ma utal leen booy bi yoon combat yi ngeen koy jël dooy adversaire am mais xam nga tey mbër nga wéetoog moom nga ne ko mbër combat bi mi ñuy proposé baaxul kii moo la mën mun la yaaram kii bu arbitre ne prix ma daan ko wala kii bu bis buñ ma booleeg moom deux minutes du ma ko defak moom mais nag ngay encadré góor yàlla tey xoolal le cadre général Malika duñ ko jël ba information bi dawee ñàpp ma woo ci àdduna fii daloo leen combat bi bu leen jël combat bi comme lii du làmb mu woo ko ci ruux mu ne ko mbër mu a ma ne ko dénkali Sénégal yëpp wax nee nañ nga delloo avance général Malika bi mun ne ma yaaram général Malika barki alxuraan combat bu mu mus am bii moo ci gën a yomb dinaa ko duma dinaa ko daan. <laughs> non lu doy wax lay tegal de te wax dëgg yàlla jantal benn boo koy encadré ngeen wét ci ruux mun la kii maa mën ñaaram mais nag looy def te lamb ku fi bëgg a dégg daal yi da ngay daan ñi fi mën ah boo bëggee nekk champion dëgg da ngay bëri gaay yi fi gën daan leen mën a nekk champion. mais boo bëggee nekk ci làmb di topp ci mango baxal yi rek mooy waral yenn mbër yi ngay dégg mbër ñu la am na 32 victoire 2 euh, défaite te demul fenn ndax ñi mu daan ñoo dul qualité. mais tey gis nga Fils de Balla ñi mu fi rangale yëpp daal di oninga mbay guy gi mii nga xam ne kan moo ko gën a këx ci làmb mu jàpp ko def ko lu metti oninga ba mu koy jël ñu ñëpp dañoo feebar. am na du ma damay fàttali ko benn année dog oninga dañu war a bëreeg moom dimanche avant dimanche bi war a combat bi war a ñëw. ñu toog ñun ñëpp xam nga dimanche di muy defar dañuy génne télé bi lamp ji code bi ñëpp ñëw toog ñuy seetaan lutte simple Oninga di daan di daan ba jël final bi sama papa ne ma yéen kii ngeen war a bëre ma ne ko kii lañ war a bëreel mu ne ma bu yoboo a ngeen dem stade bàyyi leen Fils de dem ñëw rek mais xoolal lamb jooju rek Fils de jàpp Oninga yoot ko ndànk boobu nga a dégg Oninga ba tey jii Wuz jàmbaar première défaite am ci àdduna neuf victoire la tegle neuf combat neuf victoire ñëw ba ci fils de Balla mu feree na ko. Tafa Leer Tafa mhm. général Malika. d'accord général boobu. maa <laughs> ngi ko dégg keroog muy def interview yow boo nekkee mbër. nga wër àdduna yëpp wax a wax a wax a wax a wax ba sonn mbër mi jàpp la stade àdduna ñëpp toog sa naw la yëpp toog sa mbokk yëpp toog fils de Balla téye la lu mat vingt deux minutes. di la humilier di la dóor te ñeme woo di jàpp di dëpp di dippi di juutal di bërëng ba daan la jël bu rëy àdduna ñëpp bàyyi làmb ñëpp seetaan la ne la doo dara bërki dem gis naa def sorti daan ay eh, di sànni ay trak yow bu ñu la laajee ci Fils de Balla la nga war a wax ci moom <laughs> général Malika ma ngi lay siyaar lu bari nag. d'accord mais a mooy général Malika bii rek <laughs> moom wax dëgg yàlla Fils de Balla combat bu mu musam général Malika choqué na ma ci. général Malika dama daan tëdd ba guddi barke alxuraanu kër yi jóg ne man tellement voyagé daw ndax bugguma woon sax làmb ji fekk ma fii. waaw ah, dem naa ba benn moment bëggatuma woon sax làmb ji fekk ma Sénégal xam nga général Malika day xuuxal mbër moom dafa mën a actionné wax dëgg yàlla nga dégg équipe nationale jël na ko encadré nañ ko tëj nañ ko bu jàppee Fils de Balla lool du làmb nga gis waru làmb yëpp ne wax dëgg yàlla Fils de Balla lii du yoonam warul jël combat bi waa équipe nationale def ay sorties lu ne ñu wax ko xam nga rek ñu ñëw ba ci stade bi waa waa équipe nationale encadré ko indi ko ci làmb ji wax dëgg yàlla nag général Balika ba mu tëlee ba génnee béjjan bi ak ruus bi ñëpp ruux <laughs> waaw combat boobu moom bokk na ci suñu combat yi gën a metti suñu combat yi mais nag ci laa jaaree naw fils de Balla ba tey ji maa ngi xaar doom góor laay xaar yi bu tuddewaat ko fils de Balla ndax laa bu jooju waaw ni mu ñu ci teralee bilaay ah, ah. euh, euh, ma ñëw ci ci taxawaayu fils de Balla hmm. souvent dañuy gis ni Euh, Aziz mbër mu am combat boo tourné da nga ko ci ginnaaw ku mbokkam écrit ku mbokkam écrit man déjà damay toog ci dinu malayka yi mhm. ci mbër yoo xam ne sax dama mu toll nii mhm. fajar mi ñëw di ànd ak booy nii complicité bi ma wax ak mbëru géejawaay yi waaw Fils de Balla nag moom xam nga loo ko mënti wax ba wax mooy nit la boo xam ne yëgul succès tey fi mu toll nii ci mbër mbër bu fa tolloon wax dëgg yàlla di nga xam neneen nooy doxee mais Fils de Balla moom ndeysaan dof la boo xam ne billaay yëgul succès yëgul dara lu bari waaw boo ko fekkee tali géej gi moom da ngay xam ne kii yëgul ne mooy Fils de Balla waaw moo te wax dëgg yàlla dafa bëgg géejawaay Fils de Balla man maay loxo ndey joor bi ko gën a jege ci àdduna mais barke alxuraan mbëru gé barki démb combat Eumeu si junior bi mujj ñoo toog man moom ak yaay ak landing mais Baye dafa jooy ba sonn. dafa jooyo jooyo jooy ba sonn wax dëgg yàlla ndax làmb boo bu booy ndaw bu géejawaay bu am làmb rek Fils de day mel ni moo am làmb foo nekk dina la fa fekk dina jàpp ci làmb ji te buñ la daanee mu jooy te ndax loolu tamit mooy ànd quoi booy ànd ak ay nit da leen di yéene amal leen njariñ buñ lay ñëwal nga leen di ñëwal loolu mooy làmba ah. Fils de Balla loolu tax géejawaay mbër bu xew la nga gis ko ci kanam mu nekk fas daj ci ay coono yu métti dëgg yàlla doomu géejawaay piir la li muy wax dafa nekk ci moom d' accord yéen ñi nga xam ne tey yéen a meññ géejawaay nekk fi ay gan yàgg nga dooleel yi ah. Uh-huh. géejawaay day am ay réeróo yoo xam ne day am mbër yu mag yi kii am na combat kii ñëwul kii day def open press kii ñëwul réeróo boobu am ci mbër yu mag yi aussi ci géejawaay sans euh, sans plus tard ci géejawaay rek lañ koy dégg aussi tamit. waaw boo bëggee dégg-dégg nag man loolu xam nga laa koy reproché. Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 moom nu géejawaay mel rek moom la guddi ñu toll nii nu géejawaay rek mel moom la ndax tey moom mooy moom la fi yàlla teg mooy la patron de géejawaay yi ndax bala gay 2 tey bu bëggoon géejawaay nekk benn balaa ngoon géejawaay nekk benn mais Balla Gaye 2 la kenn xamatul lu ko dal quoi moom dafa mel ni géejawaay intéressé tu ko ko Balla Gaye 2 trois ans yu ñu génn quatre ans yu ñu génn est-ce que dégg nga mu wax benn wax bu neex ci Lac de dégg nga mu wax benn wax bu neex ci guy gi te pourtant ñooñu ay nawlem lañ ñooñu quatre ans yi trois ans yëpp da ngay gis ñuy def ay sorties bu ñuy wax ci Balla Gaye dañuy wax ci moom lu rafet dañuy wax ci moom ak ton bu neex mais Balla Gaye bu leen tondoo ci télé rek yow ngay bëgg a dee. Balla Gaye tey problème bii mu am ak Fils de Balla tey nañ te dëgg loolu lu mënoon ñàkk la. bu fekkee nit la boo xam ne Balla Gaye moom li ma koy ñaan nii urgence urgence loo xam ne mënul xaar mooy naka ay mbokkam utal staff dañ ko utal encadre encadrement bu gaaw ndax Balla Gaye moom euh, ñoom Aziz Ndiaye yi mu yaakaar ñooñu amuñu jotam Balla Gaye na xool ñu ko jege ak ñu am jotam ñu encadre Balla Gaye 2 ndax tey géejewaay nii mu mel lépp moom la ndax Balla gay 2 tey bu fekkoon wàcc na sur le terrain pour géejewaay nekk benn géejewaay day nekk benn say te géejewaay bu nekkee benn say xaju ju te boobaa écurie yëppay dundaat écurie Mor Faram day dundaat écurie Waalo dundaat écurie Balla Gaye dundaat ndax moom bu booloo guy geeg Lac de rek ñu nekk benn ku ci nekk dem représenté say booy jiitalaat say booy teg leen sa ginnaaw def ko benn léegi géejewaay récupéré waat lamb en main mais géejewaay gis nga heure bu ñu defee nii rek gis nga lamb sax day dafay jaare dee. parce que Sénégalais yu bëri aussi tamit <coughs> am nañu des fois yenn commentaire ñu ngi wax relation ak yeneen mbër yi nga a moo a ñàkk sax que mbër yi nga xam ne aussi tamit naan relation ak yeneen mbër moo xaw a moo gën a ñàkk que mbër géejawaay aussi waaw xam nit nag boo waxul ay dëgg rek da wax ay sóob quoi Balla Gaye 2 boo bëggee dëgg rek li fils de wax kenn mënu koo romb Balla Gaye 2 dafa am tuuti sàmba alaar waxuma tuuti sax dafa am ngandi samba alaar gu nekk ci Balla gay 2 goo xamante ne wax dëgg neex yàlla àdduna ñi koy seetaan ñëpp dañ cee teg seen bët. Balla gay mbëru mbëri mbër yi muy jàppale yëpp amul kenn ku ci juddoo kenn ku ci yeewoo géejawaay Balla Gaye 2 mbër boo dégg jàppale na ko mbër boo dégg séq naa ak moom teraanga rek xoolal li ma wax dëkkul géejawaay te Balla Gaye pourtant xoolal rakk mi fii géejawaay rek ay booy champion rek ko fi nekk tegu fi kenn loxo. moo tax yëpp gis nga dañu jóge ko daanu ñuy bàyyi dañ bëree ñi mujj gi dañoo dem xooli leneen te bu leen Balla Gaye jàppale woon amaana barke Serigne Sall ñu ci bëri mën nañoo nekk champion mais Balla Gaye dafa seetaan booy géejawaay yi da leen seetaan te Balla Gaye géejawaay deselu ko dara Balla Gaye géejawaay lu yaat tout donné Balla Gaye géejawaay jox nañ ko lépp Balla Gaye gé Balla Gaye moo xam suñu toll nii ci ci fi mu toll nii ci stadium ci làmb xam lu mu waroon def wàcc sur le terrain encadré booy yi xool nekk ci yoon mu teg leen loxo ndax affaire yi du jàppale xaalis du jàppale dara Balla Gaye toll na foo xam ne jàppale warutul jàppale kenn nag xaalis Balla Gaye ci ay link rek la mën a jàppale boy yenn booy champion yi ci yoon mu woo promoteur ci gaw teg leen pression booy yi am combat boo amee combat nga ñëw ndax Balla Gaye nga war a bëree combat bi de cinq minutes ñu ne porte baa ngay xar ñu ne kuy yegg si ñu ne Balla Gaye 2 mu daw def cent mètres def tuus dugg ci géew gi def dóor dernier conseil bi barki Cheikhul Khadim booy bu mu ko ci defal ñaari combat ñu dégg la ci VIP yi mais Balla Gaye dama dafa mel ni yéenul booy te loolu wax dëgg yàlla ku tewu ko dara Balla ngay 2 mu taxaw fils de Balla di bëre mu ñëw taxaw tuus yëngal ñëw dernier conseil bi mu géré ko loolu du loolu dikkee dékk dikkeewu ko dara ndax géejawaay dañ ko ko defal Balla Gaye Guédiawaye lañ ko desal Balla Gaye Malick Gakou jëlal na ko fi ba jëlal ko fi hélicoptère hélicoptère Balla Gaye de ku ko njëkk a wàccee ci làmb boo ko mujjee wàccee làmb te loolu ay nit ñoo ko defal Balla Gaye de moom mooy mbër bi ñu gën a jàppale ci histoire u làmb Sénégal balagay autorité yi dañ koy jàppale kilifa yi dañ koy jàppale jeunes yi nekk ci géejawaay di taaba taaba sa dañuy jàppale Balla Gaye de ba tey jii may waxee bu amee combat gars yi di ci def seen i moyens di ci def seen xaalis di ci def seen lépp kon Balla Gaye de il a mu jàppale booy yi loolu mooy dëgg ndax Balla Gaye 2 boo xoolee at mii ñu génn àdduna ñëpp constaté nañ ko Balla Gaye 2 muy sénégalais bi ñu gën a critiqué ci Sénégal sénégalais bi ñu gën a sànni xeer ci Sénégal ren mooy Balla Gaye 2 te loolu pourtant mën na ñàkk ndax Balla Gaye mënoo fi déparé nit ku baax nekk gaynde nekk champion géejewaay àdduna ñëpp gën la nga nekk international Balla Gaye ñëw ba ci fin rek carrière am bi bëgg ci def suuf bëgg a yàq Balla Gaye lan lay ut ci ganale booy ñaa loolu moom yaaram du fi sax nekk di ko maslaa ak di ko laam-laamee na xamu tax Balla Gaye 2 dafa am ay derby yoo xamante ne ça génère de l'argent tey Balla Gaye 2 ak Modou Lo loolu xam nga xaalis la Balla Gaye 2 ba mu xaritoo ba mu bëre premier combat Modou Lo ñëpp xamoon nañ deuxième combat Modou Lo mu xaalis bu bëree bëri la kon enjeu boobu duñ ko yàq Balla Gaye du fa demu fa tuur demu fa mu ngénte demu fa mariage ndax loolu dañ ko war a sàmm dër bi boobu ndax dalee ni jural lu bari boo ñaa ngi nii gis nga ko dafa daan géejewaay ñu bëree baree baree bëri <laughs> mais Baye Fall jeexal ñëpp ñëw ba ci Balla mu nekk dër bi international mais ñun li ñu métti mooy Balla Gaye def ñoo wanul benn réaction ne bëgg naa jëli sama revanche bëgg naa leen fajal mer Balla Gaye loolu la ñu wanul moo tax ñu découragé ñun ndax mbër bu mel ni booy ñaa daan la avec la manière man jour boobu laa yël kii damaa jooy jooy bay bëgg a dee ndax man Balla Gaye 2 rek laay topp barki alxuraan man Balla gay 2 boo ko demul laaj ko léegi mu ne la pii moom a gën a bëgg ci àdduna fils de Balla bu ma taxawee sax moom nëbb bëgg Balla Gaye am day puus man Balla Gaye àdduna ñëpp ma xamee Balla Gaye Balla Gaye ay combat am laa jël kii du ma bàyyi ma fenn barki Seydina Mohamed montre bi may takk sax dama koy commandé Amérique man du ma ñawlu tabaski du ma ñawlu korité man événement yu bëri intéressé wu ma Balla Gaye lañ naan lay bëri mois d'août ma jàpp GP yi dama leen di jaabanteloo Amérique ba ñu mere ma ndax yére casquette tubay dàll lépp du ma bëgg mu jóge Sénégal ndax dama naan lii événement la man mooy sama événement Balla Gaye di bëree. ma ci dund lu métti nag moom Modou Lo bu njëkk ba non deuxième bi bi ñuy bëree amitié yi barki Serigne Touba xoolal ni ma nekkee kilifa su ma neexoon yu bari duma ci fekk man Balla Gaye buy bëri damay taxale koog sama sago ci kaw tribune bi laa jugee naaw ci suuf barki alxuraan plus de dix huit mètres ma tëb ko jugee ci tribune ba tëb ci pelouse bi. xam nga kon kooku jaral na ma combat bi passé na mu ne ma gën di sédd naa la ci biir ngay reyante rek combat bu dama cee reyante jaaxante ci ndax mu doog combat ba bala ba day méttee mu jaral du trop mais tey sa digganteeg Boy Niang nekk combat boo xam ne derby la dugg waay daan ñëpp ñëw sa kër daan sa rak sa rak wii di nekkaat ci yoon bi te Balla Gaye dëgg bu yàqul woon lii moom Boy Niang Sa Thiès d'ici deux ans Sa Thiès ko koy na ndax bu daanaate benn combat ñaar Euh, jugee Modou loo wàccee Boy Niang ñoom ñaar da ko kojaat foofu beneen dër bi day judduwaat beneen cent millions dafay gënaat mais Balla Gaye dafa mel ni yéenewul sax rakam ndax mbër mu lay daanee nekk dër beeg sa koñ amoo loo koy demal bu fekkoon sax dañ ne Boy Niang dafa am dëj sax garaawul quoi ndax dëj moom mën nga def jaale ji ñëwaat mais ay nganal a caaxaan yooyu Balla Gaye de Mbassé wu def délégation di lëfër lëfër yi ba Pikine ndax ay nganale quoi loolu pour géejawaay kenn kontaanu ci waay wax yàlla bu dëgg la bëgg mais géejewaay kenn kontaanul ci loolu ndax diggante boobu booy ñaar dëgg la làmb day jeex te làmb jeex mën nañ seq jàmm mais dër bi ñuy dund nag mu leen dañuy sport dañuy sport business dañuy sàmm suñu business boobu. daw ma nganale waay daw ma nganale Pikine mënoon na ko woo wala mu def ko leneen je sais pas ndax mu booy ñaar dañ fi amul relation sax booy ñaar lim la fi yekk yëpp ci àdduna per dëggul yekk la ko fi ci àdduna xoolal fils de Balla ko dóoree ci waa Fils bal Balla combat boobu xoolal lim ci daj ci communication rayante jaay bakkanam tey a combat bi passé waa kër Boy Niang ñëpp ay def sorti di ko ñaanal defet moom doomu bi gis naa mbokk mi yëpp def sorti di ko ñaanal yàlla nañ ko dóor mu daanu yàlla nañ ko lii te loolu Balla Gaye moo ko jural Balla Gaye moo booy bi dafa bëgg Balla Gaye ba amu ci sago Balla Gaye boo ko laalee 10 heures Fils de Balla 10 heures 30 day génn bu la mënee xeexee day xeexee bu la mënee tontu ci micro tontu boole dajee mu faj la bu boo doxee nag ba ñu ngeen war a bëri mu def la lu metti ndax yow mais sa poulain mais da ngay yow nit da ngay protéger say poulain Balla Gaye 2 làmb guddi ñu toll nii munul am ci àdduna ku gën a am maanaa fi sabal la loolu suñu borom dogal na ko tey VIP Sénégal yëpp koo ci ne woon kaay ma jaay la liet naa mel ni fi sabal la barke alxuraan mu def ci ay millions ndax fi sabal ku ne xam ne ne mbër partout la waaw day dëggal boppam ci yow dëggal boppam sa kanam dëggal boppam sa ginnaaw pare mu nekk mbër bu sincère du ànd ak mbër di tricher Balla gay fu mu daanoo fi sa Balla journée boobu da koy jooy ba suñu waa kër ñëpp ay ñëw di ko massaw di ko ñëpp dañuy foog ne sax kii daa ku deele ndax coono yi muy ci Balla Gaye mais loolu boo gëstoo tey ñu nekk ci deux mille vingt deux mille vingt boobu Balla gay mun a sol dàllam ànd ak délégation dem ba kër Boy Niang <laughs> mais dem fa dem fa nganale ci 2023 boobu Fils de Balla di ngénte Balla Gaye ñëwul ñun ay mbokkam sax dañ naan ko yaaram mu naa ñu ne ko arrête yéen ñaar seen diggante xoolal na fi yam ndax ñun ku ñu toppatoowul toppatoow ñu la ku ñu gëmul gëmuñu la Balla Gaye ñoo ko ñoo ko gën a bokk ci famille bu riche fuuf ñoo ko gën a bokk ci famille bu am maanaa ñun suñu askan cat ba suuf barke alxuraan amul ku ci mës a fowee ngemba kon xam ñun duñu ay mbër Fils de Balla la suñu borom nattoo rek mu dugg ci làmb nekk ci mbër mais Balla gay 2 Fils de Balla nawleem la Fils Balla li bu ngénte fii keroog Macky Sall sax bu ko yëgoon day ñëw Sonko bu nekk ci problème bu yëgoon ngénte Fils de Balla bi day dafiy ñëw ndax ngénte lu au niveau neex àdduna ñëpp di ko coow Balla gay 2 mi ngi këram téye téléphone am di xool YouTube bi gis tudd bi matinaal bi ni muy neexee lépp kilifa yi fa ñëw yëpp amul làmb ak lu làmb kilifa gu ñëwul ci ci ngénte loolu mais nag ku fa mënti ñëw te Balla Gaye ñëw fa dese naa safe ndax ñi fa ñëw ñëpp boo xoolee Fils de Balla defal leen bu bari ah ñu ci bari séq nañ lu nice nii rek am nañ cofeel ci Fils de Balla ji Fils de jox na leen cër ñu ñëwal ko quoi mais Balla gay 2 ngénte loolu nit waru ko fi woon jiitu ndax ndax deux ans yi ñu génn non ku gis Balla Gaye ni mu taxawee ci Fils de Balla ba Fils de Balla annoncé ne day def ngénte ndax mariage bi dafa defoon lu simple ngénte taaw ñu nekkoon ci ay problème mu ne day off deuxième ngénte bi nag bu ne day ngénte doomam woo àdduna bi ñëpp yëgale ko fépp wax ko ci internet bi wax ko ci média yi wax ko fépp mais nag Balla Gaye moom il est kii ba mënul jugee jugee golf Balla Gaye bu fekkee mënul jugee golf ñëwul fii de Balla fi géejaay ñoom ñaar dafa jarati ñuy ànd. <laughs> sorti Fils de Balla bi ndax laata mu laa jël kii Fils de Balla fii nga toog fii lay yendu chaque jour fii lay reeree Fils de Balla sama place lay yendu guddi gi fii lay ñëw reer fi fii lay reer ba ngoon Fils de Balla moom ñemewul def lu ñu umpu munu sax def nag ñooy nekk guddeeg bëccëg ñun dañuy liggéey fii sa bàll bu xëyee suñu place lay ñëw suñu liggéeykaay fa lay yendu toog fa ba ngoon bu vingt heures jotee ñun ñëpp fii la ñuy dajewaat di fi reer chaque jour ba minuit une heure du matin rem ñi bii fii sa bàll réeruñu ci dara kër gis boo xam ne ba mu defee émission bi tak fii lañ toog taal ko di seetaan di ko décortiquer di xool faay yeeg yi mu fa waruloon wax ak yi mu fa wax am na loo xam ne ñu ngi koy naxarul ndax communication moom tey xuloo dafa war a yem dafa war a sain quoi xuloo dafa war a tegu ci yoon tey mën ak yow ci ànd nañ seq nañ ay teranga mais bu ñu xuloowee yooyu warul génn dañu war a xuloo ci luñ jotee ñëwaloo ma baadoo la nga amoo sama jot ñu waxtaan ci loolu quoi xuloo ci loolu mais wax dëgg yàlla dans l'ensemble li mu wax àdduna ñëpp ci ànd gis nga tey axlu làmb ñëpp def sorti tey kan moo deful sorti ci problème bi ndax diggante bi ñëpp la neex diggante Fils de Balla Balla Gaye 2 axlu làmb ñëpp la neex barke alxuraan ay mbër yu dëkkul waaye sax dañ ko bëgg diggante boobu ndax tellement dafa nice Balla Gaye fils de Balla comme ay jumo bëggante jantalante nduroo bëgg ay bëree bokk këtch mais bala Gaye bu mu yàq loolu géejewaay ñu ngi lay ñaan Balla Gaye bu yàq loolu fils de Balla sa nawle la fils de Balla bu ayee tuur famille sax yow da nga war a ñëw ndax yow fi ñu toll nii ah bul bi dafa tourné yow yaa war di topp ci fils de Balla mais fils de Balla waratul topp ci yow waaw. ñu gis bi aussi tamit ñu ñu bëri di ko xaw a critiqué nii euh, tey waroon naa mën a bañ wax lii aussi tamit ñu bëri am ci mbetteel que ni Fils de Balla mu tey Balla Gaye mos ta xam seen kër aussi non déggoo sànq rek maa ngi seetaan coach coach kii bi laa doon seetaan sànq coach entraîneur non non manager u Lagros laa doon seetaan léegi mu ne mbër boo gis nit ñi dañuy ànd ak moom te yàlla rek tax mbëru Sénégal yi koo gis muy ànd ak mbër xamal ni daa bëgg mbër bi rek te yàlla tax mais ku ci nekk mbër bi yan na la loo xam ne waru leen ànd six mois ndax mbër mooy doxee noonu tey Balla gay 2 wax dëgg neex yàlla ku xam géejawaay xam histoire géejawaay xam ne Balla gay 2 foo ko natt ci sikk wees na fa mais nit ñi dañ ko bëgg nit ñi li ñuy jox ci làmb la ñu bëgg moo tax dañuy gëmm yu bareem tey ñoom ñëpp dañu war a roy ci Boy Wally Seck ndax Wally Seck laa gis jeune boo xam ne moom rek laa gis ku xam li ko fal quoi tey xool ko rek lu mu am ci askan bi delloowaat na ko ci askan bi te nag boo yoree métier yoo xam ne pour nga réussir foog ni ñi jàpp ci mais kooku bu boo dee ba réussir da nga war a delloowaat affaire yi ci mboy boy tey bala ngay dë wax dëgg neex yàlla am na ci loo xamante ne rafetul géejewaay yëpp gunge la sa carrière ba mu naagis jàppale la Balla Gaye 2 public am da nga ko a gis ci làmb Balla gay 2 ay open press am da nga ko mës a gis ci làmb mais loolu waa géejawaay ñoo ne ci ginnaaw mais na bu la géejawaay yóbbee ci làmb ba nga sës ba yow mënatoo dem ba nga commencé nag nekk ci faire carrière Balla dafa war a rafetal instant bi accompagner ay rakam jàppale booy te ay ñoom ndigal ay caatu daaw da faal mais ak booy champion yi bàyyi ñëpp ku ci Balla Gaye teg loxo ñaari combat àdduna dégg la mais du ko def quoi ñun loolu jaaxal dañ trop am na ah, mhm. xam ne mën naa ne xam naa ñu bari sax ñu waaw kii ah, xamu Balla gay 2 moom tey su may wax ci moom. adduna uh-huh. ku seetaan lii da nga jaaxle. Uh-huh. mais nag li ñuy wax rek mm-hmm. ñun ay nit lañ yu ay responsable lañ yoo xam ne topp ñu Balla aveuglement nii. bëgg nañ ko nag gaa ci làmb mu jaral ñu leen lu nekk ci làmb mais nag heure wax dëgg bu jotee dañ koy wax dëgg ñun on on ci làmb. ñun bërewu ñu ménagé wu ñu defuñu dara dañu nekk ay supporters bëgg ko lool nekk ay magam di daj ci moom ay coono tey bu ñu gisee mu wàcc raay bi mais dañ ko war a tegaat ci raay bi. bala Gaye 2 Sénégal dañ ko wax dëgg mooy mba Sénégalais bi ñu gën a critiqué ci année deux mille vingt deux beeg vingt trois bi te loolu mën na ñàkk. am na solo ah. Hmm. gannaaw nag bu ñu wax ba pare nag te lu ñu wax ci taxawaay bi nga xam ne aussi tamit yaa ngi koy jàppale sa gox euh, ku ne na entreprise bi nga xamante ni moo di Yassouna Diop. Hmm. xale yi naa ne euh, seen kër sax lañ ko def. tey nga nekk nga nga nekk chef chef chef d' entreprise mais faale wu entreprise bi dafa mel ni leneen sax nga gën a jox ko entreprise bi parce que da nga koo bàyyi ak dëkk bi aussi. non entreprise bi nag boo bëggee dëgg-dëgg yaas motor nag sama bakken bi laa ci teg moom tamit ndax loo xam ne moo lay suturaal moo lay sagal moo moo tax ngay mën a jàppale ñu bëree bëri wax dëgg yàlla da koy fonk nag. waaw waaw waaw xam nga teraanga àdduna moom mon ami bë moom la ñuy wax ci Balla Gaye 2 léegi gis nga nit njariñ doom day bu ñu am xamante man ak yow te amul ma la njariñ vraiment amul sens quoi ma ah, ma ak yow ñu xamante sekk jàmb sekk ay terrain sekk couleur te amul lu ma la benn njariñ loolu am na sens tey bu ñu xamante man ak yow da nga war a amal njariñ ma amal la njariñ yaa xam nag njariñ yi mën na dugg ñëwee fu ne su ma xewlee gis la boo xewlee gis ma des fois ma jàq ci benn affaire woola laaj la ci nga wax ma ci sa xalaat des fois ma am ku ma mën a jot te yow yaar numéro ma woo la guñu quatre-vingt-quinze léegi xam nga mais nit loolu lañ koy doyee ma euh, su ma soxlaa jàppale làmb nga ñëw taxawu ma loolu la ñuy nit ah moo tax tey yaas motor su bii li li néew mu bari as tuut bii ñu yàlla may jéemu ma koo sax nekk fii di ko dajale chaque jour lu ma am dama koy saamte ko ci taabu bi ku ñëw ñu séddoo ko su bu ñu xëyee utiwaat ndax àdduna loolu lu fi yàlla indee pour ñu jàppalante mënuñu dara nag defuñu dara dañuy nekk ay jeunes yoo xam ne dañu gëm suñu bopp ba xale yëpp dajaloo wee te dem kaaw ñun dañoo décider da ci réew mi la ñuy toog fii la ñuy liggéeyee dëgg yàlla nag suñu borom bu ñu dimbal ndax àdduna booy yi maa ngi leen gaal géeg yoonu Nicaragua amul njariñ chaque jour nga gis kaaw man ba mu njariñ chaque jour nga gis ku ne États-Unis ta mu njariñ kon pour man jeunesse bi nañu jéem a gëm seen bopp quoi ay affaire gaal yi bariwul sens ndax man gis naa cent cinq plus de cent mille personnes yu jaar ci gaal gi tey jii ma wax ak yow def nañ euh, Espagne wala Italie cinq ans wala six ans mënuñoo fexe ba daje un million musu jugoo teg bët un million. imagine toi nga jaar ci gaal risque yi ci nekk yëpp ñi nga àndaloon xaaj yi ñëpp dee yow nga dem dëkk boobu te mënoo fa am un million pendant dix ans loolu est-ce jar na ko amul sens na jeunes yi gëm seen bopp xam ne àdduna wërsëg fii lay nekk ci dëkk wërsëg du nekk ci dëkk du nekk ci ay. ngelaw wërsëg sa ndodd lii lay nekk boo demoon ba Malicounda dala fay fekk boo demoon ba Argentine dala fay fekk nga toog Sénégal nga ndax yàlla bu décidé ne da ngay dugg ci kaaw bi kenn du wax boo doon nelaw sax nit dina la fekk ne la yaaram kaay ma dugg la ci dil bi ñu dem kaaw mais nag nit ñi nañ gëm seen bopp teraanga àdduna bët yaas motor su nag ñu ngi ñaan Sénégal ñëpp bàyyi ko xel ak ak ak Al Al di nuyu suma doomu ndey suma xarit. Landing waaw borom SPS borom mool yi maa ngi wax képp ku bëgg kuy tabax maa ngi ciy woo sax Kanje Kanje production dañu yor entreprise bu mag buy defar ay mool ca jam ñaajo mag Landing ñoo fa investir. di ñaan yàlla nga ñëw teg ci loxo ñu ngi defar ay birig yu baax ay birig yu mucc ayib sociétés yu bari ñu ngi ciy liggéey ñoom mais ñu ngi ñaan Kanje di ko woo mu ñëw ñu liggéey ci di woo ñëpp ne képp ku soxla birig bu baax ak euh, lépp lu wàllum tabaxukaay nañu seet si incha allah boo ñëwee Landing ñu la teg ci ci yoon jaay la brique bu mucc ayib. waaw maa leen gën a kontaan waaw guy gi 95 maa ngi lay bu baax nag di la wax ne yow li li Père Balla waxoon mbëri rek di nga gis groupe bu mbër mais ñëpp mënuñoo nekk champion waaw ñii dinañ nekk mbër ñii dinañ nekk videur ñii dinañ nekk ay kawmaan ñii dañuy wër après di di taxawaalu quoi mais yow moom fexe nga ba bokkoo ci ñuy taxawaalu waaw ba nga demee ba xam ne làmb jàng ciy jóg daanu sa wërsëg bariwu ci nga nekkoon champion mag mais jël nga sa benn yoon te wax dëgg yàlla Sénégal ñëpp ak lay suivre di la encouragé lu bari waaw di rafetlu sa liggéey di ñaan yàlla mu gën a jëm kanam nag ba liggéey bi ba nga dem baam sa yëfu boppu mu mel ni 2STV ak TFM ñëpp àdduna ñu dégg ko fu ne di nuyu suma frère bi nekk Paris kookoy sunu taaw Ali Ndiaye maa ngi koy nuyu ak ñoom Bouchra ak ñëpp di nuyu Adam Mbaye sunu taaw bu jigéen bi nekk Espagne di nuyu suma xarit yëpp di nuyu góor a pata kooku nag wax dëgg yàlla du ma taay ji nugu ndax mooy sama loxo day joor tey wax dëgg yàlla ku may dimbali sax moom mooy tax ndax mooy ñëw moom damay jógee woo ma ne dina ma dimbali mbër bi wala pii dimbali kii wala dimbali kii man awma ci benn décision moo ciy jël nag moom bu ne ma defar rek damay def ndax su ma nit la gis xew bu mënti am mooy tey sama sacoche mooy maye mooy gérer des fois mu gis ne maa ngi maye ba war a jeexal mu nangu sacoche bi ci ban yóbbu sacoche bi waaw maa ngi ñaanal bu baax borom Pullman di ko sant di ko gërëm di gërëm waa amoo 456 yëpp. waaw di nuyu di wax Aziz Ndiaye tamit moog ñoom Baye Ndiaye ak seen waa kër fils de Balla doomu géejawaay la nañu ñëw teg ci loxo ndax booy bi bërigo ci mbartal la te wax dëgg yàlla Aziz Ndiaye booy fils de Balla doomam la. ndax ñu ak joom seen papa dañu yàgg ñu nag sunu papa yi la woon bàyyi àll yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko ci àjjana yi gën a koy démb la woon ñu dem ba seeni i mag takk suñuy grande sœur mu nekk kóllëre bu yàgg ba ci yaay xujja ñu ngi koy ñaanal mu gudd fan yaay xujja ba mu njëkkee ñëw këram ne ko sama rakk yi dañ commencé bëre te bugguma kenn di leen tëggal làmb te Aziz Ndiaye tëgg làmb dafa dugg ci néeg bi ne bëreet yee Aziz Ndiaye fekk muy nelaw mu ne ko Aziz dugal ñi say cousin lañ jugal nga jox leen ci làmb yi Aziz Ndiaye delloo si sa xel yàgg Baye Ndiaye boo leen demee bay tëgg làmb war ngeen a tëggal combat bu baax fi zabal la ndax seen deret la gis ngeen ko nu mu mel ak seen i rakk seen i seen kër yëpp jàppale leen booy bi ngeen teg ko ci yoon moom dafa nekk ci yoon Aziz Ndiaye maa ngi nuyu bu baax suma xarit la suma gaayaan la nit ku baax waaw. di ko jaajëfal vraiment mm-hmm. ci tànn. di santaat ñi ma doon di waxaat góor a góor a góor a góor nekk baax aussi tamit ah. bëgg mbir rek mooy kanam ak ñàkk simple ah di sama stagiaire bi dabaax ah di nuyu ak équipe People 221 yëpp di leen jox di ko yëpp seen émission fi ci People 221 jërë ngeen